am yi fidèle internet yi ñuy seetaan ci différentes plateformes yi nuyu nañ leen bu baax a baax di leen kontaane comme toujours ñu ngi leen koy defalee tey la ñu ngi fi nga xamante ni moom moo di si Diva Saly jàkkaarloo moom maa ngi leen di fay ah, maa ngi nuyu amee internet yëpp ah di leen jox seen wàccuwaay maa ngi leen di fay bu baax a baax noonu dañu gis li nga xamante ni moom moo di yow ah, sa ay boutique nga xamante ni moom moo di natt nga xamante ni yaa ngi koy jiite yàgg na trop ñu ko woon mais na loo xamante ñu bëri bi nga xamante ni yaa si jiitu mais ñu gis nga xamante ni moom moo di Fanta Mboup ñu bëri jàpp ni ko yow lay copier lépp ci concurrence lan ngay wax ci loolu waaw natt moom ku ne xam ne ne Diva Saliou boo ko déggee yaa ngi koy dégg ci natt yi tubaarikàlla man jàpp ma ne am naa concurrence waaw comme ni nga ko waxee nag copier lu baax la kuy def lu baax la ñuy copier waaw xam nga kuy jaay sa bopp doo gis ñu ne la kii day jaay boppam naa copier kuy jaay lu bon doo gis kii day def lu bon naa copier kon bu fekkente ne yéen gis ngeen ne loolu la rek ah copier lu baax la dama ciy kontaan dama ciy kontaan parce que booy def dara ba nit ñëw toppaat di ko def danga ciy kontaan fierté la parce que nit na nit di la ko toppaatee ba la koy fësalee ah kon fierté la ndaxte bu doon lu bon ku ci toppaat yi doo ko fësal waaw dama ñëpp toppaat waaw tey ñu bëri dañoo jàpp ne fi ne moom Fanta moo nekk ci kaw moom moment bi ñu toll même bu ñëwee di la copier tamit moom moo la moo la gën a nekk ci kaw euh, moom moom mooy jaay nga koy wax que ne moom li muy jaay moom ku ne xam na ne réew mi ci digg réew mi xam nga ku xam ne ci digg réew mi fi ñu toll nii li may jaay ci meuble benn jaaykatu meuble jaay ko ndax man chaque jour damay xëy di dugal yéen bi di ñëw yéen ngi taxaw maa ngi chargé quatre chambres à coucher TikTok bi heure ma xëyee maay dugal chargé dëkk bépp maa lañ fii maa ko jaay koo lim nag koo xalaat rek ba lim ko Diva Saliou ko jaay hésité nga xool ku la neex maa ko jaay. Fanta ku muy jaay Fanta nee na moom mooy moom moo yor dékoy ba rek xalaatal ñenn rek nga ne nga xool. jaay leen koo nga xool nga ne ma kii ak diw ak diw ku leen jaay maa leen jaay ku nekk nag na jaay wër sa gërëm rek du yoolu natt yi tamit maa ngi koy natt di ko teggi dew ma ci police dew ma ci tribunal maa ngi natt macha allah xale jox nañ ma bopp c'est que nag jotu wax laa jot wax laa amul ndax tey jii ba may bu boutique ba samay tool laa xëy ñëw ku ne xam ne ne jeudi ba léegi yéen a ngi koy gis maa ngi ci tool yi jeudi vendredi ba samedi ma nekk ci tool yi tey laay soog a ñëw man weekend bi li may am tuuti temps ci tool yi koy resté mais ñoo ngi ci gaaw na ñëpp liggéey rek ñoo ànd liggéey. Mhm. beneen problème boo xamante ni du ñu jàkkaarloo yow te tamit leeraluñu ko mooy sa diggante ak nga moom moo di Fouta Tampi bëri na wax ji bëri na lan nga ñu ci mën a wax. kuy kooku Fatoumata Ndiaye non xaw ma ko <laughs> non xaw ma ko coo dafa am cooli num demee waaw na génne xam nga lépp na génne ay audio man xam ma ko mais na génne bu amee audio Diva Saly fu mu wala fu muy waxee nit lu baax wala fu muy waxee nit lu bon plutôt nañ ko génne maa leen ko may nañ ko génne réew mi dégg ko sa bopp de waaw Diva Saly xamul sama kanam gi boo ko liiree rek xam ne man Faris laa Garmi laa grande diva laa du ma wax lu bon du ma ko def mais nag sos moom fi lañ ko fekk te fi koy bàyyi ah te ki nekk ci kin ginnaaw kenn du ko coow ki nekk ci kanam la ñuy coow ah waale ku am loo génne da ngay génne rek xam nga léegi moom xam nga léegi téléphone wax la appel lay doon wala audio ku ko am da nga koy génne bu divan saaliw nag laa wax de man bu may waxee bu may waxee ku ko am na nga ko yoon du la ci topp dara maa leen ko may ci jàpp ne kii am soso moom moo ko ngemb lu mel noonu lan nga ci wax da nga am problème personnel ak am soso wala lan non ah non problème am zozo am yaay la ah suñu yaay la waaw borom Sweden suñu yaay la bàjjenu xale yi yaayu xale yi may ko borom Sweden suñu yaay la c'est que am zozo xam la lu mu def day jël nit day gis nit mu sonn mu boole ko ak ay nitam. xam nga li ma la wax maanaam tey ji yow boo xamante woon ak moom nga benn problème boo ko waxee su ko mënee faj léegi daf koy faj mais su ko mënta faj dalay boole ku ko faj. góor la garmi la. góor la garmi la jéegu Sweden bi. merci beaucoup. merci je vous love. présenté wóorool bëgg àdduna bëgg géejawaay di bëgg képp kuy bëgg seen Konar di leen xam nga di siyaar ñëpp di sant tamit xam nga fi place nekk géej pro business xam nga fere ñu ne ñoom dañuy liggéey ñoo nekk suñu premier sponsor jox seen wàccuwaay bu baax a xam nga sama jigéen nekk fi ku ci mel ni Binta nekk jàmbaar quoi xam nga benn bitik boo xamante ni mu ngi nekk géejawaay afa Sane Ndiarème vraiment nekk jigéen gu mën góor xama mu ne day indiguraat beneen place moo tax mu ñëw tëj ko fii cité Aline Sow xaw ma Nesteo Sene ah Nesteo Sene en face pharmacie bu mag bi rek waaw allahu rabbi rek xama taxaloog doomu ndeyam Viva Saliou waxuma Diva Saliou man nu ko Diva Viva Diva Saliou waaw Diva Saliou ne moom it nekk jàmbaar vraiment gay pour business daal liggéey téléphone bu ma yor sama famille ñëpp ñoo jox waaw ñoo jox waaw Paradise moo doon o ñoo ma ko jox waaw dañ lay jox pare incha allah loolu problème. alors sa diggante ak Binta. waaw mu nekk jigéen gu baax nekk jigéen goo xam ne jigéen gu mën góor xam nga nekk jàmbaar goo xamante ni xam nga ku ne dafa war a war nekk référence ndax tey aduna léegi gars yi xam nga surtout jigéen ñi tey war nañoo jël exemple ci moom ñu war a jël exemple ci moom da gis benn xale bu jigéen boo xam ne day mel ni comme tey moom na ni a mel su ko neexoon def comme ne léegi boo dee xool appartement yi xale yu jigéen fa bari boo xool lu ci mel ni fee nu mu ma demee mixa bi ñu fa invité damaa ba àdduna xam wala Azim booy seen télé yi gratuite xam nga bon booy kay ngi noonu léegi xam nga tey ñu war a jël exemple ci Binta booy léegi koo ci gis ku la ci gën a ndaw télém bi da koy bonus 2000 nga nga seetaan télé xam nga kon tey dañu comprendre ma de non jërul ay ay seetaan comme exemple boo dañu jaay seen bopp laa la bëgg wax kon boobu war exemple ci comme ci ku Binta ndax tey àdduna ah waaw wii la ñor ku ñëw ñu connecté wu loolu problème bi xam nga léegi tey kon tey boo gisee jigéen gu nekk góor ñun dañ koy opilé ñun jàppale ko xam nga ñun teg tey jeunesse bi jël référence si moom xam nga Sénégal bari na ay dox quoi ko def lii. jàmm. waaw ci jàmm maa ngi nuyu sénégalais yi di nuyu waa àddina euh, di ñaanal ñi nekk ci kaso yàlla génne leen. di ñaanal malade yi nekk ci kër yeeg hôpital yi yàlla fajal leen boppam ba ñu delluwaat seen activité alors tey ñu fekk la fi nga xamante ni moom moo di fii ci Gueye Prod Business mu inauguré boutique am euh, lan mooy seen rapport lan Business tey buy inauguré boutique am defe naa ne buñ fi gisee engagé duñ ne duñ ne duñ ne duñ jaaxle parce que ku ne xam ne ni nit la koo xam ne dëgg la sax tey dafa da di bisam rek mu nekk nit koo xam ne ñemewul écran mais tey bu taxawoon fii tamit ma wax muy dégg muy que nit la koo xam ne li ma xam ci moom rek laay seede muy baax dal ak bëgg nit. ba pare tey su ma ko xamee yàlla ak diva wa tax te bi ma koy xam dama ko xamee ak diva ma ñëw fekk lu ñuy ànd ànd bu rafet ma ñëw yàlla boole ma ak diva ñuy liggéey ba pare mu yaatal ma ci sama diggante ak diva tey su ma ñëwee ci diva fekk ma ko su ma ko fekkee day mel ni fekk naa fi diva amul lu may waxtaanee ak moom lu ma dul waxtaanee ak diva te du ma ko waxtaanee ak moom donc nit ku baax la nit ku dal la nit ku bëgg lu muy def la aussi. te damay gis saa bu ñu toogee ci waxtaan ak lu mënti xew ci àddina moom ki nga xam ne mooy borom problème bi li mu koy seedal li mu li mu koy conseil danañ maanaam dama gis mature ci moom mature ak muñ toog xaar yàlla lépp luñ la mënti sosal lépp luñ la mënti waxal ci àddina Binta daa doon nit koo xam ne toujours day ànd ak dal day demee ak conscience am bariwul fréquentation nag parce que à part Kër Diva bi koy gis këram la ak beneen place am bi nekk Géejawaay tey mu doon nit ku baax tey buy inauguré place am damay ñëw après ñëw ba pare ñaanal ko ci jëmm ji nga xam ne ñoom dañ koo bokk muy Serigne Babacar Sidi Fage Démé mi ci jawaat ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla taxawu yàlla bu yàlla tas yaakaaram place bii mu am yàlla na ko fi yàlla suturaal mu am fi ay place li moom moo di liggéey bi métti na te na nekk ñun si li ma koy conseil mooy que liggéey bi gisuma ni metti na parce que ci ku mu metti sa côté rek yow yaa ko metti mais tey boo yamee ci ci sa place dem ci wërsëg gi la yàlla booleel parce que yor sa place Euh, teewul nga ànd ak sa dignité ànd ak sa personnalité te xam ni yàlla mooy jaay bo boo tijjee sa place mën nga bañ a xuloo bañ a xeex mën nga bañ a wut concurrence te teewul da ngay jaay nit ñi fépp foo mënti nekk dañ la fay fekk defe naa ne loolu li ma ko war a conseil moom xam na ko parce que c'est pas la première fois tey muy inauguré place am am na place Guédiawaye te tey bu fa góorgóorlu woon tey du am du li mu am nii donc li ma li li ma koy conseil rek en tant que en tant que en euh, bi mu doon ci man donc dama koy conseil na focus rek moom moom neex na conseil parce que li ñu yàlla na tosox ñun ñuy feeñ ci réseaux sociaux moom fekk ko ci Binta du feeñ waaw du feeñ ci réseaux yi dafa ma koy ñaanal rek mooy jàmm jàpp nga ni ñàkk dina ko arrangé parce que fii ku ne xam na euh, dañuy wax ñu ngi ci réseau yi TikTok ak yu mel noonu jël semé boobu non non fa parce que suba suba suba am na borom place bu ma war a dem defali ji publicité te moom du feeñ ci réseaux sociaux yi donc du feeñ réseaux sociaux yi mais yàlla boole na ko ay nit yoo xam ne ay nitu réseaux sociaux lañ defe naa ne du metti ci moom parce que même même moom bu dul feeñ ci réseaux sociaux ko ay nit yoo xam ne euh, ki nga xamante ni moom moo di Lac de Guiers 2 ginnaaw bi ne ko euh, démb may nañ dama sant yàlla rek parce que kaso kenn du ko yéene doomu aadama malgré quelques situations boo xam ne moo ko fa dugal kaso kenn du ko yéene doomu aadama donc comme génn na dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla taxawu te yàlla bu mu fa delluwaat di ñaanal ñi fa nekk aussi yàlla génn leen te yàlla buñ fa delluwaat. alors tolof tolof metti mais parfois da ngay dégg ay mots yoo xamante ni si c'est un ni moom moo di ci la nekkoon ñu ni moom dafa nekk koo xamante ni si waruñu ko dégg si bases yooyu ay conneries la euh, nga nekk ci tolof tolof ñu lay wax yu mel noonu tamit waaw loolu li ma ciy wax rek mooy que euh, gis nga bu bu nit ki defee erreur ndogal fekk ko ci ndogal xas na ba ñëw donc yedd yërëma ko gën cest à nit dina jóge ci ay euh, conséquences yoo xam ne li ko war a wax moom xam na ko bu yàgg donc la de xam na bu baax a baax ni muy toogaatee xam na bu baax a baax ni mu war a defee donc man comme cas bi maîtriser wu ma ko à 100 pour cent du ma ci mën a sori. lii lan la ko mën a jàngal parce que talof talof boo ci jógee war ci mën a jàngat en tant waa lim ci mën a jàngat exemple yow tey jii nii boo doon jàll fii am benn weñ bi fi taxawoon gisoo weñ ba nga salu daanu bis boo fi duggaatee boo génnaat doo bàyyi xel ci weñ bi foofu la rek cest à bi mu defoon ba tax mu dugg ci lii tey tey ci kat man jàpp naa ni dina ko moytuwaat ba ëllëg lii du ko dalaat soobee yàlla. alors ñu gis mu génn def li nga xamante ni moom moo di déclaration mën nañ ko wax mais remercier na remercier mbër yëpp remercier ki nga moo di Modou sama sama xarit sama doomu doy maa waa gisee ma ko lenn lu dul nit ku ci nekk ak ki la yàlla booleel am nga tey duma toog fii nii di gërëm Diva ñu may mere parce que xam nañ fi ma jaar ak Diva donc la de bu gërëmee Modou Lo peut-être fi ñu jaar la moo tax man du ko ci balaame de même su ma nekkoon fan sa keneen ci mbëri te tudd ma ko ci balaame parce que tamit euh, nit boo xamul noo koy def ni mu la defa tax nit dina jaar ak yow di nga des fois di nga toll gudd yoo xam ne ki la fa fekk doo ko yemale kenn donc am na droit tey mu taxaw remercier Modou par contre gis nañu ni que remercié wul Balla Gaye mu jur polémique ndaxte dañu jàpp ni xam ne moom moo di Balla Gaye gis nañ ko ci image yi gis moom moo di seen ay ah, man gis xam nga euh, xam nga euh, doomu adama yi li ñu bëgg a gis kenn mënu ci dara man tey li ma la wax sànq rek su ma toogee fii waxtu gërëm jot ma gërëm diva yam ci kenn du ma mere parce que xam nañ fi ma jaar diva te pourtant diva am na ay na ay génération bu mbokkal métier bi ñooñu duñu ma mere parce que xam nañ fi ma ni ma mel ak diva loolu la rek. mais jàpp nga ne ki moom moo di Balla la woon jàpp woon loolu yow. ah kay xaritam la woon jàpp naa loolu kay xam naa ne xaritam la woon. le fait que mu nekkoon xaritam tey mu ñëw gërëm Modou Lo ba insisté ci sama doom ndey sama xarit te gërëm ko loolu la nekkee ci situation yi Modou Lo moo ko ci def la looloo tax mu taxaw tey gërëm ko xëy na peut-être loolu la donc duñ ko ci blâmer. merci beaucoup